salaamaaleykum àddina salaamaaleykum suñu mbokk internautes yi seen émission Kong-Kong ñu ñëwaat ci deuxième numéro Talla Prod indil leen ko borom nous mémorisons vos temps forts ci loolu rek lay dox tey nag ma ñëw ci koo xamante ni ku jar ñëw la koo xamante ne nii guerrière la battante la dugg na ci fecc mi dugg na ci way mi dugg na ci njaay mi boo leen xoolee boutique bi rek xam ne macha allah firndeel na ko mu nekk koo xam ne nag tooroo dala en même temps defe naa su ma waxee seen xel dina am ci ku mu dem balaa ma leen koy won dañuy dugg ba ci biir ñu xool kan la exactement. li ma jaaxal nag mooy est-ce que dinaa ko fekk ndax man xam naa moom ba moytul talaa <laughs> un dinaa def koŋ-koŋ du ma fekk kooku <laughs> xaw boobaa nan laay def mais bul fàtte nag jël ma ci kaw ba ci suuf dàll yi sama benn doom bu nekk depuis euh, Italie temps yi mu ngi France moom waaw temps yi mooy bombu Europe yaay Marichou maa ngi koy bëggee bu baax a baax yére bi merci beaucoup. madame sàmba di Anita depuis Italia, borom italiano maa ngi lay merci beaucoup ci yére yi ko waxee suñu mbokk internet yi. Euh, junj naa leen ko ci bunt bi nee naa leen koo xamante ni tooroodo la. wax naa leen fi mu jaar yëpp. su ma leen ko waxee seen xel day dem rek nag ci kudul umu saw. waaw saw pulo borom nag yeeg meew yi. Ah moom lañu seet si tey. ci butigam lañ nekk boo leen gisee yii nii yëpp ngeen xam ne ñu ngi ci butigam ndax ci da ci yëngu euh, moom laa jàkkaar lool nag di ko bàyyi mu nuyu ñi nga xamante ne ñooy mbokk internet yi. Mhm. umu salaamaaleykum. maaleykum salaam si sa njéeme di kontaan ci sa teewaay di la bëggee bu baax. di nga ñëw Amazon boutique fekk ma fi macha allah. Mhm. yaa ak équipe bi nga xam ne dafa xarañ lool. waaw ah di nuyu ñëpp mbokk téléspectateur di ñuy seetaan. <laughs> konko ngeen wax. waaw koŋ kon entrée. neex na ba pare. neex comme ni ma ko waxee rek. Mhm. Euh, émission bi dafa basé wu ci ñu waxtaan. Mhm. ci ki ñuy seet si ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy tuuti rek ci passé. ci passé bi nag day laal li nga xamante ni mooy ay originam originam tey bu ma la doon laaj umu sa sa sa dëkk origine. Mhm. sa dëkk cosaan. fan la sama waaw sama dëkk cosaan macha allah Kanel la. mi ngi nekk biir Fuuta. waaw Kanel la di sàmba Samba Gila Jéegi. képp ku jàng histoire am ci école. Mhm. Euh, jàng nga ko. Mhm. Koli Tengela Laba Tengela Nima Tengela. Ah. ñoo ñooy sama maam. Mhm. dëkk Kanel. komitaanu Samba Jëlaa Jéegi. voilà daam loo tàmbal nag ñi nga xamante ni. ñooy ñooy ñiy seetaan. Euh, muy dama seetlu umu fu ñu ko invité. bu nuyoo ba pare rek laal ci pulaar bi. waaw pourquoi defo mhm. mi salminimo hawma onon bandiraɓe haalpulaar en mi salminimon onon fof on jarama allah jarama mi weltimon onon fof mhm. machallah fulɓe fof ko gotum macha mhm. allah macha allah euh, tey boo ñu doon wax li nga xamante ne mooy seeni culture xam nga culture yi bëri na bëri na mais loo xamante ne benn ba ñaar boo xamante ne waa Kanel teg nañ ko seen bakkan duñ ko duñ ko bàyyi quoi loolu lañ gën a fonk ñaar yow ah. mu mën a jox exemple rek waaw li ñu gën fonk mooy euh, tey bés bu ñu la doon takk. Uh-huh. da ngay solo jombaajo def li nga xam ne mooy cosaanu alpulaar. Uh-huh. toog ci néeg bi nag semaine yoo xam ne doo ko génn. Uh-huh. loolu dañ ko fonk ci séet. fonkaat nañu képp koo xam ne ne doomu alpulaar nga foo toog del tiitaroo sama cosaan que man al ah, je suis fière alpulaar. te nag fonk nañu nit ku. fonk ay mbokkam ba lu muy def jiital leen si. d'accord waaw loolu daal man ñett sax laa wax yoo xam ne ne. Mhm. Euh, alpulaar fonk na ko. Euh, cere moom euh, kosam kaadam. Mhm. waaw yooyu daal fonk nañ ko macha allah boo ñëwee ci culture bi moom. Mhm. loolu moom boo ko fonkee rek. macha allah. ci ñi nga xam ne ñooy alpulaar tey boo fote yax dugg sa si sa si sa put. dañ naan penn saal ma ca nawal léegi bu ñu waxee loolu. am na ñoo xam ne ne ñoom mën nañ ko dañ koy def génne yax bi maanaam même boo ko gisul dinañ am luñ def loo xam ne ne dootoo sentir te yax mi ngi foofu xam nga man mag mooma moo ma yar duma la duma la dog penn saar ca ngaw la waaw am na sama maam lu mu ci daan teg jooni jooni ngoloot je ne sais pas parce que moom tukulóor la waaw waaw am na lu mu ci daan teg dama ko daan reetaan parce que doomu ko woon nag waaw dëgg la xam nga xale yi léegi dañu jël cosaan di ko. te cosaan booy seet mooy njëkk te mooy mujj. dëgg la man dama fonk culture. ba dama ko fonk même ci chorégraphie. Mhm. nga gis ko sol déguisement. Mhm. alpulaar comme ni nga def nii. Mhm. xam nga mooy loolu daal. <laughs> yow fii ba fii rek nga fonkul culture mais ci kaw moom fonk nga culture côté jaaro yi. <laughs> bul comédie bàyyi ma waay la <laughs> est-ce que yaa ngi fay dem. est que yaa ngi nemmeeku sa mbokk yi foofu waaw maa ngi leen nemmeeku ndax sama neex de. sama yaay eh, waa Bappalel la. te dem naa Bappaleel. Mhm. xool naa ni ñuy toogee gis naa leen. Mhm. ni ñu fonkee culture bi. Mhm. donc kaas yi. Ah, ni bu ñu añee ba pare fi ñuy toog di féexlu ataaya bi di jooli macha allah. guddi gi cere mbuum bi. xaa ko uula sapato di ñebe daay kosom. njóor ni lépp ngi ci biir. donc dem naa ba découvrir naa sama cosaan bu baax a baax a baax. ñëw.

fekk sama nijaay mooy première euh, danseur am euh, Baba Maal Amadou Boli Ndiaye professeur là aux États-Unis mhm. yor fa salle bu mag di def chorégraphe di jàngal américain yi léegi macha mhm. donc euh, ñëw soo sa boo doon premier manager Youssou Ndour sama kër maam lañ doon répété Medina donc di dem Gambie di ma yóbbu partout.

Uh-huh. am na Amazon les Amazones de Cheikh Ba ci côté politique bi. Uh-huh. maanaam fu nekk laa yëngu daal ci ak ci biir Amazon macha allah. jamono buy yàgg ba. Mm-hmm. millier bi dafa metti woon. Mm-hmm. showbiz bi bi. tey lu mu metti metti bu njëkk baa gën a garaaw. rawatina jigéen bu ci dugg. Mm-hmm. nekkoon xale lool ndax bu ñu ciy dugg. xale nga woon lool nga ñëw dugg ci ñu ànd ak ñoo xamante ne ay kàngam lañ. Papa Ndiaye Géwal waaw waaw taasukat la. mais ñëpp ko doon dégg. ci temps la nekkoon ci temps la nekkoon. ñu ne nii nga tourné nekkaat ci Jolof Band. Jolof Band yaa dox jéego yooyu wala daam ku téye sa loxo. yóbbu la ci ñooñu. non non man doxuma jéego yooyu parce que yàlla day def comme li ma la wax. talent bu nekkee ci yow nga def li ngay def ci télé ànd ak Salam Diallo def clip bu jalgati am na fecc bu bees. Mhm. def ko clip bi cartonné am succès nice. Mhm. donc Viviane gis ci demoon am doom. gis ma ci ak euh, maman kii gor goroom yaay mm. Youssouf donc bi ma ci ndey soxna maman ndey soxna moom maa ngi koy nuyu de passage donc bi mu ko gisee ci la ko ne xale bi neex na ma mm. bés bu ñu ñibbee Sénégal dinaa ko dinaa ko lijjanti noonu noonu mu ñëw après jaar ci Salam Diallo Salam jël sama numéro ñu jox ko ko Viviane maa ngi koy nuyu de passage sama mag bu baax la ndax su ma tukkee dem partout dans le monde ci mm. jamono boobu moom moo ma fa moo ma jàppale ah. mm-hmm. euh, ma ñëw def mayonnaise def essayage. affaire bi jàll. jàll def buzz def buzz loolu daal dara fay ko. <laughs> ci loolu la ñuy ñëw ci ci li nga xamante ni bi nga paree. ci mm-hmm. loolu mm-hmm. mayonnaise bi. Mm-hmm. Euh, gis nañ Oumou Sow. di dox ndànk nag. di dox ndànk ci wàllum fecc mi. jékki-jékki rek dugg ci ci ci way bi ba tey génnul showbiz bi. non dugg ci way bi moom it tooroodo boobu ba tey ñu di ko xaar ci li nga oh. xamante ni mooy leneen su même bu duggee ci way bi. waaw muy def taasu. lan la Papa Ndiaye mi nga njëkk a feccal mu hmm. nekkoon taasukat la wala parce que c'est rare déjà nga gis tukulóor boo xamante ne day taasu bëriwul bëriwul waaw bëriwul parce que li tax bëriwul mooy euh, tukulóor yi ba léegi rek liñ gëm la la mais actuellement ñi ñi ngi dugg ci diaspora bi léegi tukulóor yee ngi taasu yee ngi wangoo yee ngi def mhm. lépp macha mhm. allah mhm. mais moment boobu euh, il fallait ma defoon loolu parce que tamit doo mun di dem euh, di dem spectacle donc di jël son wu jàmbur di ko playback mhm. léegi da ngay dem ba mu yàgg yow kooku ngay defal promotion mhm. léegi defaan si nag ñu ne la il faut nga defal dara sa bopp léegi nag ma def jubal ba ne koo ci say bañ dëngal moosu kaneel sama dëkk mhm. bi ma defee kaneel bi rek moom tam gars yi naan léegi nii critique yi nag bëri woon na parce que maa ngi doon doog a door mais après ma def taal moto bi gars yi di ah. ma def fly to fly gars yi jooy fly to fly dafa war nga xam li nga xam li xew ci avion bi <laughs> bu musul dugg avion rek foofu damay sensibiliser. <laughs> ndax am na daqaar yoo xam ne dugg nañ avion musuñu dugg avion bañ duggee sama way lañ fàttaliku bañ ko fàttalikoo rek dañoo dugg rek attache ceinture donc déglu li nga xam ne mooy consigne bi après nga wane yoon ça veut dire que li ñuy wax tout le temps mhm. woy bu yeetewul rek déglewul amul amul ay naxaate la kon maanaam taasu gi génnee ngi ci li nga xam ne mooy njëriñ mooy njëriñ ndax tey man mu mel ni ab mm. tout sero bi bu ma duggoon dinaa déglu xool nan la ko umu wayee boo yéegee rek ci avion di nga xam ni ko umu wayee woon boo ko defee noonu rek kenn du la ne Dakar wala ñembaar <laughs> barki Serigne Fallou ñu ne dee tawaay <laughs> uh-huh. ma ne dawal moto parce que ci bopp attention c'est recommandé ah loolu sensibiliser na ci firi boobu laay ñëw waaw ak ci ci ci ci rafet bi mm-hmm. ak ci sañse yi mm-hmm. umu saw mm-hmm. saa yoo génne clip. Mhm. beneen ba ca topp. Mhm. dominer moroomam. dëgg la. lan la secret bi lan la ba xam ñi ngay liggéeyal. Mhm. ñoo lay jàppale wala daam ku lay jàppale financièrement. wala umu saw moo koy liggéeyal boppam parce que. dangay xam ne clip bi xaalis la. waaw damay ndax lépp lu mu laaj da nga ko ciy def. macha allah nit ñeeg lépp daal. macha allah macha allah parce que dama ne aar bi du course. il faut nit looy def nga jël sa temps. nit warul yàqamti. def naa baby foot. am na un an mais mi ngi saf àddina ba tey. dëgg la mbëkk bal teg dana dëgg bal bi gis naa ki may paas dee ko xandal. Uh-huh. darab dafa maandu njëgënaay du nettali. wax yu baax yoo xam ne xale dañ ciy topp. Uh-huh. xam nga baby foot dafa nekk loo xam ne xale dañ ko daan fooyee depuis dañ ko daan fooyee depuis xale. bien sûr ku ku nekk disket tey jii am noo mel jaar nga ci ay babi foot xandal nga. dëgg la donc yooyu yëfu xale yooyu dañ ciy uh-huh. jaaraat. ma ne léegi comme def naa lii. mu def buzz léegi il faut ma xalaataat leneen lu gën a garaaw nit da xalaat am temps bind parole am temps clip ak moment bi nga xam ne ne fi ngay ñëw fekk aar bi xaw a relax nga dugg mhm. mais bu buuxante amee boo duggee sax da ngay tàq tuuti nit ñi coow la nga daanu xanaa looloo tax ñu gëj a gis Oumou Sow waaw parce que Oumou ni muy liggéeyee la damay jël deux ans ferme of ko nit ñi naan anamu ci lu mu nekk lee fekk maa ngi liggéey loo xam ne bés bu génnee day saf àddina waaye clip ba boo ko xoolee doo bëgg mu jeex kon loolu mooy sa philosophie yow. waaw man sama philosophie loolu la man ya bëgguma buuxante bëgguma yàqante. d'accord booy seet su suñ naan kii mooy def bës sax moo xew dama lay bàyyi ba nga xew ba pare. boo xewee ma ñëw xewaat. Youssou na naan ba jëm ba jëm man damay am fu may ñëwee. d'accord koo xam ne kenn du ko xalaat barki Serigne Fallou. dafa am fu ñuy ñëwee. dafa am way yoo xam ne ne waykat dina ko way waaye wayalu ko boppam ñëpp la ko wayal. kon ñu di lay xaar daal. doo ñëw ci buuxante mën nañ ko xaar chaque deux ans. mu ñëw indil ñu ay affaire ma indi lu leer indi clip bu saf boo xam ne ne àddinaa ko moom mhm. ndax nee naa tiim say noon dépassé say maas mhm. nit ki bu la jiitoo bàyyi ko mu dem waaye mu jiitu la nga di ko kar waaye bopp boo tabaxul toj ko du yombu jaamam waaye bu kenn pirate boobu nag tiim say noonu <laughs> dépassé say maas sodaaf laa nekk dama ko man ci sama bopp. administratrice la kii bi. maa ko koy exclusivité bi. waaw exclusivité bi yéen a ko am. <laughs> man ci sama bopp maa ko déclaré sama bopp. ngoone ru suñu PCA. Mhm. moo koy tamponné wax bi jeex. ku mhm. kenn jël tiim say noonu dépassé say masse. loolu wax naa ko un an à l'avance te ma nga ne may waaja dugal incha allah tekk ak organiser rek ñëw dal seen kaw rek. ak ak diplomatie daal. ak diplomatie xëccoo maa kenn ñëpp sama xarit la. biir émission bi dafa am anecdote anecdote wàññiwoon. waaw ci foofu nag la ñuy la ñuy des dama la koy won léegi nga xool exactement. dëgg la xale bi ñëwoon rek nga xool jëlal sa jëlal sa jëlal sa temps nag déglu ko bu baax bësal. ok. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant ba ma laajee sa umu naa sawar si wax naa si sawar a wax parce que umu dafa nekk ku courageuse ku am jom anecdote bu ma xam si umu saw. am na benn année buy sëram ba ba sëram bi di yóbbu màq yaayam su doon sago moom moo koy yóbbu mais daf ma woo man en tant que xaritam daf ma woo ne ma man de pour doon sama sago sama yaay maa yóbbu mais comme ça sama sër bi yóbbu na ko man dinaa ko yeewal nag changer ko salon affaire bu nekkoon lu daw yaram si man émouvant parce que da xam ne kii jigéen la mais jigéen bu am jom bu jàmbaar la anecdote boobu laa xam si Oumou Sow mu nekk nag ku baax ku humble ku gentil. <laughs> c'est triste c'est triste bali mhm. la Banjul Coulibaly mhm. kii sama ami d'enfance dañoo bokku école bokku classe. Mhm, dundandoo lu nekk nag parce que man dama préféré woon ànd ak góor que ànd ak jigéen. parce que man mooy loolu. xam nga moom sama ànd ak jigéen dafa xawul yomb daal. te il faut nga xam ko. li mu wax nag li mu wax dëgg la. li mu wax dëgg la. Euh, sama mag dafa nekkoon Paris. Mhm. ndeysaan maa ngi koy nuyu suñu taaw bu baax boobu dem Bank yàlla na ko yàlla defal jàmm. ndax moom mooy suñu taaw bëgg ma nag te yàlla tax. Mhm. Euh, mu jóge Paris euh, fekk man tam daan naa jàppale sama yaay si ceeb diwlin bu ma feccee wala dara ñëw gaare parcelle jox ko xam nga. dem Gambie bi joué ji ñëw di ko dooleel daal. xam nga fekk divorcé woon naa sama papa mu metti donc euh, may def jéego yu bari yoo xam ne macha allah jarul sax wax. Mhm. effort boobu léegi nag amoon yéene yóbbu sama yaay màkka. bët yaa ngi tooy. <laughs> ah kaawul amul solo bàyyi ma dëgër tey bàyyi ma dëgër rek ndax baa rek daaneel na ma. dëgg la dëgg la. donc yàlla def euh, ma ñëw sama mag annoncé ma ko ci téléphone que dama bëggoon yóbbu sama yaay et tout. Mhm. fekk man moment boobu met yoruma woon daal. léegi ma ne. léegi moom na ko yóbbu man ma ganale nga xam ne ne day nekk ñun ñaar ñëpp ñoo koy yóbbu daal mhm. day nekk ci digg bi daal mhm. léegi moom mu yóbbu mhm. balaa mooy ñëw ma changé photo yi jënd nag ganale képp kuy ñëw macha allah togg yéeg ma def kuy dem ma jox la paas samay nit ñëpp macha allah noonu laa def dooleel sama yaay kon après sama mag yóbbu na ko mais mel na ni ñun ñaar ñoo ko yóbbu Oumou Sow animatrice dafa nekk moom tamit sa passion wala da nga ne rek jigéen dafa war di liggéey liggéey liggéey lu mu war a def rek lu mu war a mhm. euh, nu mu koy waxee liggéey bu ñëwee rek dafa war daf ci war dugg waaw macha allah ma damaa bëgg xale bu bu bu bëri métier d'accord li ma may opportunité bi mooy mhm. euh, déjà célébrité là, hein machallah porteur de voix lo wax nit ñi dañ lay dégg machallah nit mën na ñëw di jaay yéré wala dara comme ni ma def kenn ma ne ma la nga la bëgg bi nous bouquet yi koku presque ay millions Lek ci lo ci sax mhm. kon image day jaay tey mi ma ni def ak émission rek sama taguma sama bop de mais li tay bu ngeen ko dina may lu bëri may ki nga xamné ne patron lu bëri ci sama image <laughs> tala wuy ko <laughs> politicien bo andali ngeen di politique di ko <laughs> may lu ci buzz suñ ko xamul woon dinañ ko xam à travers cette image d'accord njéeme hmm. su métier D'accord. fenn sama ambition la woon dafa ci luma luma luma ndax Aziz de passage Euh, bu Oscar des vacances. mu mhm. ma njëkk préparé ci loolu. donc euh, ma dem RTS te RTS ku ñu formé rek daanaan nga. dëgg maanaam ku ñu formé di nga am expérience quoi même mhm. boo nekkul daanaan xam nga neuf mois Aïssatou Sarr jël ma fa émission Takusaan. ma ko fay def di def ay placard des stars su ma demee si star bi na ko ibil ma sa placard ñu xool sañ sa yeeg collier yeeg yooyu ma def ko affaire bi am buzz RTS neuf neuf mois après sax directeur bi doon na ma woowaat pour ma ñëw. fekk na Dakar TV jël nañ ma ba pare. d'accord xam nga Dakar TV tamit dama fa nekk pour euh, dooleel leen parce que mhm. Noa Camara daf ma am dafa am yaakaar ci man. donc ñaniñ Camara maa ngi koy nuyu de passage aux États-Unis jabaram moom it loolu. Mhm. Mhm. ak Mansour ma fa nekk ak Mansour xam nga ma ñëw ci waaw maa ngi koy nuyu de passage ak bi ma indi foofu Dakar TV ah. donc ma ñëw ci télé ba macha allah wàññiwu ma macha allah ma yokk. dëgg la Oumou Show chaque samedi Dakar TV international jamono bii ñëpp. dem nañu euh, uti chaîne bi. te ba pare nag direct nga def. appel direct. en direct nit ñi di la woo États-Unis di woo noo nag am nga fit macha allah. non mbir mi du fit li nga doon da nga ko mm-hmm. gëm. Mm-hmm. ose ci. Mm-hmm. qui n'ose rien n'a rien. dëgg la man damaa bëgg xale bu osé. bu am fit. te am personnalité digne. te bañ a ñàkk fayda. dëgg soo ko defee rek atteindre say objectif. dëgg la soo ko deful. tojal àddina mais doo sa kenn te humble wàcce sa bopp. modeste.

suñu kiiwu talaa bi. nga jël si kenn waa bëgg a leer nga jël si kenn fii nag. Mhm. Euh, liñ ci bëgg mooy. Mhm. umu saw naturellement. nan lay waxeek euh, fansam. Mhm. bu ko dee woo téléphone. wala wala wala wala wala moom mu woo ko. waa waaw. ñu xool kan nga jël. di leen wax rek numéro bi 77 478 39 40 pour ku bëgg adhérer rek. ci biir kii may si Diallo. Diouf am naa jëkkër jee sant may si Diallo Diouf. si numéro baa ngi nii léegi nag. waaw koy woo. Mhm. ñu xool Oumou Sow en direct nan lay mhm. waxee ki nga xamante ni mooy fans bi. ok 77. da nga koy jël nag ndax damay bañ wax ko. Ah, direct xam loolu ak 6 ak boobu noonu ak 2 ak boobu. suñu mbokk opérateur yi. pour mhm. jokkoo bi gën a gën a yomb yomb daal. Mhm. waaw na ngeen ñëw. waaw bëri na ñett lañ fi xaw ma ñeent ñëw leen. wax promotion koy def au pour ñu dégg. Euh, kookan la may si madame Diouf. waaw may si madame Diouf kookan la. Oumou Sow à l'appareil. Oumou Sow ba. Oumou Sow Amazon. Oumou Sow Amazon. waaw waaw. ah surprise bi moom moo tax ma defal la ko tey moom ci àjjuma ji rek di la ñaanal jàmm. Ah, di kontaan ci yow bu baax a baax a baax a baax. ah koŋ-koŋ de tey ñoo ñëw ci sama biir bi Amazon ah, boutique. man de ni kon nag ah may jàllo ah, jéeri. maa raw maa bu baax baax a baax macha allah. amin may si kontaan naa ci yow bu baax a baax. yàlla guddal amin may. merci merci beaucoup merci. yàlla euh, waay may. bu gaaw sax nag. waay. incha si saa wande. <laughs> waa may si. Euh, yan qualité nga gis ci man ba bëgg ma. wala ci ba bi may dugal ci birata <laughs> neexna ma batay parce que yow lo def mu neexna lo def rafet wa tien bi neexna la nonu sa sa sa teen baax na macha Amazon boutique nak ma jox la ci leeda koor yi nga defar ba mu mané ko amo ak sa bu bay merci beaucoup chérie. wa gis nga sa teen liis na man kay dama xamul gaay lu ñuy xaar tamit. ah dede nak xam nga nak man je t'aime tu lay dundo ah waaw xam nga mariage tam projet la no no non emena emena ah. emenañ ma léegi xam nga lan la je ci même lay dundu mariage bo gis projet la ñaanal ma rek projet yi antu inshallah allah rek ku baax ku gën ci yow jëkëru mbeur bu dul mbëru lamb déggal loolu da gis ka boba dama décoré la inshallah inshallah day ñëw inshallah allah na naa jàllo jéeri gënu la ndaysan kenn gënu la ndaysan borom nag ak mewi eh way loolu foor na waa jàllu jéeri mi lum nam ma waa non émission bi mooy def buzz entrée de mi ngi nii fim mu toll nii dugg nañu ba toog ah, di birale njéeme ah, rek ci xale amin ndeysaan xale bu baax amin amin wallaay yal na yàlla def ci waaye kii waaye waa waa waaye Diallo tax mu neex moom nee na ay ay ay dix sept lay sees waaye waaye waa ana alaaji bi. alaaji baa ah waaw man kontaan naa ci yow de nii ngay seesee waaw bu ngeen seesee guddi gi moom lu mu fay demee xanaa da ngeen di birale. guddi waaw kon waaw man man de taamu naa jéeg bu dul nelaw guddi moom jéeg day am insomnie guddi. Ah, kontaan naa. ñëwal Amazon boutique nag saabu yeeg gommage yeeg yu baax yëpp a ngi fi parfum de classe yeeg sañse yeeg ñaw yi yëfi biir néeg yeeg tamit ñi ngi fi yooyu duñ ko wax ci kaw ci suuf lañ koy wax à suivre rek dëkk bi yëngu kontaan naa sama xaritu xool bi kon on sappel incha allah numéro baa ngi noonu enregistré ko dégg nga. mu ni samay fans yi dañ maa yàpp sax heure bu nekk lañ may woo may nelaw sax soo yeewu laaw dañ la soxla man ay waaye may leen ma nelaw <laughs> mais ci biir nelaw sax damay wax ak ñoom <laughs> damaa bëgg nga tëjee nag lim la wax léegi waaw mariage quand mariage yàgg na nag de macha allah. baax na te xam nañ ni prétendant yi ñu ngi fi. ñu ngi raam du prétendant ma aw ma prétendant. man ah. kenn rek laa am je t'aime tu m'aimes ñuy dund. waaw ah, léegi bu ñu dee ma <laughs> ànd ak moom ci ay qualité am ànd ak moom ci ay défaut te xam ne nul n'est parfait. waaw loolu am na. ah loolu la de mm. kenn mënul ndamu ne sama góor mooy loolu. kenn amul góor gu parfait yàlla rek a parfait. mën nañ xaar Oumou saw année bii. année takk ah man duma wax année parce que je une personne boo xam ne ne sama yëf day ñëw naturellement. d'accord waaw sama yëf day ñëw naturellement ñi nga xamante ne yaakaar jigu leen daal. non man yaakaaruma. Mm. parce que li ma am xam naa ne ginnaaw yàlla ak yonent bi. Mm. yàlla rek moo téye ci suñu relation. Mm-hmm. bu desoon ci ay nit ma xam ne relation bi jeex na yàlla rek moo ci jàpp yàlla mooy suñu sëriñ mhm. mooy def moo ko namee nu ko neex waaw ku jël nag sëriñ dugal ko ci wala nga dugal dugal ci leneen mhm. dootoo ko defati ndax ku yàlla faral la couple bu yàlla faral la tey rek laa daj yàlla ñu faral <laughs> émission bi jeex na looy tàggatoo looy li may tàggatoo mooy di sant bu baax di sant bu baax a baax samay waajur yi nga xam ne ne tey mhm. ginnaaw yàlla ci bi ñoom la Mhm. ndax ku amul wéeruwaay da nga yomb ba max ndax milieu bi danse na metti na boo jógee dem sax ñu ne moo xew wala moo kii nga gis ñu bësaat la nga toog Sénégal ku xew la ñuy bañ moo tax man bëgguma di xew naa xew rek ci samay fans ak ñi ñi nga xam ne ne dëgg-dëgg yéene nañ ma jàmm mhm. ci mel ni Nafisatou Sarr la grande couturière mhm. Nafi Sarr mbokkum ndeyu Malick Sarr sama xarit bi ngeen fi fekk mooy sama kóolëre di sama doomu ndey munaas États-Unis ku dama am nit yo xam dañu sincère ci man ci am sama ñeñu ñom day ndjay Medina dañu sincère ci man man ñom lay ci ànd ak yàlla ak yonent bi ak samay ñaani waajur ànd ak ki nga xam ne ni uh, deug deug daf ma bëgg sincère ci man Amina muy sama première fans uh-huh. dekk uh, Kaolack uh-huh. sey sina fi sax legi ties di sante Serigne Touba ak al Fadal ndax fi moy nindi keur Serigne fallu deug la bëgg Serigne Abdou Karim Mbacke falilu mu bëgg ma uh-huh. suma ñëwé ci kërëm ga da naan nit ñi na ñu ñëw ziyaara ñoom ñëpp ñu ñëw mu génne ñëpp bàyyi ma ma toog mu toog ñu jàkkaarloo bëkk néegi sax bu amee ñaar wala ñett ca yam ma jàkkaarloog moom mu may ñaanal di ma bége su ma jékki-jékkee jóg rek def samay façon ne ko fàllu kawel na kaw ba kaw na ca kaw ba ñëpp ne galas ni ee bu leen ma yéem yéem leen ko moom maam fàlloo jara yéem mooy wax ñuy jottali borom kasura jam borom nindeeg saam mhm. bàyyi sëñ Abdou Karim Falilou mhm. moom lay bégg man Serigne Fallou moom ma booleeg Serigne Abdou Karim Falilou di ñaanal ah. Serigne Afia Falilou yàlla na xippee àjjana ndax Serigne Afia it sama Serigne doom la woon sama doom bëgg ko ñu bëgg ko waaye jamono bii ginnaaw làqu na yàlla na yàlla yokk leeram mais Serigne abdu Karim moom daf maa ñaanal mhm. ma gis. dëgg la premier oto bi nga gis. macha allah sama mhm. première oto bi ma am sama mhm. caabi oto. moo ci ñaan ba namatuma ay oto macha allah. la ma ñaanal yëpp gis naa ko bàyyi Karim maa koy ñaanal. lu ma doggu ci moom wax ko mu jël butéelam googu wax ca mu am kooku dañ koy ñaanal yàlla na fi yàgg te wér lool lool lool. balaa ñuy jeexal fans yëpp di euh, kontaan ci ñoom nag. Uh-huh. fans yi ndax amul du ñoom dinañ ma woo dinañ ma nemmeeku. dëgg la tiim say noon dépassé say maas mi ngi ñëw. Uh-huh. man ak yéen du ay caaxaan moto 4 laa leen di indil dekkilaat ko ñu ci kaw. papa Thion naan ma wàccal ma naan ko tiim say noonu dépassé say maas koŋ koŋ <laughs> jommi naa li amul seen émission koŋ-koŋ nii la woon deuxième numéro bi euh, ak ki nga ko nar a jeexee sa doomu nday yi toog ñoom abi ah abi réalisatrice mi toog def liggéey liggéey ànd ak kii lu mu tuddati sama xarit bi Michel moom de muy muy muy présentatrice bi daa mel. rasta rasta girls bi mu tudd. <laughs> yow comme que xam nga waxal. rasta girls bi ñeme. aji aji aji a ngi nii boobu ba léegi ngi takkal ay fiil borom rose ficha bi. nag ñu rek man coo amna loko te ko tuddee mooy cocoo waye nak ki nga xamna nak moy suñu PDG bi nag. waaw kokoy tala ah, tala diso sank da nga wax si euh, euh, seigne Mbacke Abdou Karim rek. seigne Abdou Karim bal jëlal may borom nindi ak sa borom Touba Bogo fi moy nindi. kon tejj nako tejj nako umu tejj nako di len wax rek benen numéro inshallah d'ici 15 jours <laughs> merci beaucoup. kon kon entrez sotu len ko defati.